professeur Issa Sall ñëw nga Daaru Muxti ñi ngi la ci wax euh, dalal ak jàmm ci Daaru Muxti di la wax ne bis ni ki tey man ngaa dëggal sa bopp ne Daaru Muxti am nga fay nit lu wér la waaw fu taxawee ne Daaru Muxti am naa fay nit loolu war ngaa taxaw dëggal ne am nga fay nit te euh, nit ñu am qualité nga fi am yow da ngaa da ngaa bokk ci politiciens yi nga xamee ne da ngay wax ne man bëgguma sax ay nit ñoo xam ñu duy leen ay kaar di leen andi ne ma sëñ Koso ndaje ma bu fekkoon ne benn nit wala ñaari nit wala ñett nit dafa nekk te nguur ne mi ñooñu ñu dëggu ne man moo ma gënal kaar yu fees del loolu moo fi am. li nga wax tamit doy na sëkk ndaje mi ñun bu yamoon fii sax mu neex ñi ñu war a gis ñëpp gis nañ leen kilifa yëpp gis nañ leen mbokk yi ñëw nañ foofu si gisanteeg yow nuyonteeg yow saafanteeg yow kon ñu la ji sant bu baax di la ci gërëm. ginnaaw loolu tamit maa ngi wax ci ñi nga xamee ne mooy Benno Bokk Yaakaar bi nekk Daaru Moxti maa ngi leen di tàllal loxo wax ne parti bi parti bi dëgg la yàggagul waaye sanc nañ ko fii ci Daaru Muxti tàllal nañ leen loxo nag pour élection yi ñu jëm bu ñu mënee waxtaan ba déggoo ñu ànd ak ñoom ci élection yi ñu seet ku ñu fiy teg ñu ànd ak moom dem ci élection yi bu loolu mënta am tamit man bis ni ki tey taxaw naa pour laaj maire Daaru Muxti te loolu lu am mérite woon naa ko waaw te laaj de maire Daaru Muxti jërëjëf taxaw naa laaj ko ndax ndax ndax ñi ko yor ñëpp jàpp naa ne gënuñu ma ko mën a yor ndax sama baay sëñ Bassirou yor na ko 26 ans lim fi def foo foo tourné boo xoolee gis ko boo lambee daj ko ba mu fi jógee sama mag la ko jox Modou Baax Mbacké lim fi def ba fii may waxee yow amul meer bu ko def Daaru Muxti kon nag jot na le temps mu ñëwaat ci loxo yi ñi ñi ko moom jot nañu jotaat maire bi liggéeyal ci Thierno Birahim liggéeyal ci waa Daaru Muxti kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Kosso dafa wax lu leer naññ bu weesoo mu kilifa yëpp nuyu waa daaru dañuy wax ne ku lem ku lim juum fii sax boo limee faw nga juum parce que ay sàng rek ñoo fi nekk ay sàng rek ñoo fi nekk mënu lim ñëpp maa ngi leen di sant di leen nuyu ci mobilisation bi wante nag Serigne Kosso dafa jox benn message bu leer naññ dama ne nit ki lii sa mébét na ko wax mu leer parti politique mooy association bi nga xam ne ku ci bokk dangay ngay politique te politique du lenn lu dul defal askan wi te comme ñun ci askan wi lañu bokk defal askan wi mooy defal sa bopp Dakar Touba daanaka une heure lañ ko def bu njëkk defe naa ne daan nañ ko def quatre heures ba cinq heures de temps lan moo waral loolu mooy Ila Touba bi Ila Touba bi nit mënu ko jële ci poosam daf ko jële ci yow jële ci ku kii jële ci ku kii tabax tali bi tabax hôpital defar lycée loolu mooy politik te loolu tax ñu jóg parti politique nag tubaab dafay wax pouvoir wante pouvoir dafa am benn connotation boo xam ne ku sañoon danga koy tudde neneen te pouvoir dafa commencé ci municipalité nekk conseiller nekk maire dem assemblée nekk député dem exécutif nekk président nekk ministre loolu mooy pouvoir pouvoir nag boo ko jëlee du pour yow pour askan wi moo tax parce que bu nekkoon pour yow rek nit ki jar lu muy politique parti bii nag dafa nekk parti bu néew ay fan wante fii ci Daaru si jàpp naa ne am na fi base bu solide base boo xam ne sëriñ Koso moo ko téye ngeen war ko ci jàppale nag nenn ngeen ko ci jàppale parce que li wax dafa waxu nee na dafa soxla mairie Daaru Musti leer na bu leer na bu baax nenn rek la koy mën a amee nag mooy mu sos ay comité réunion bi dafa mujj nekk mitin daanaka ñu wax ne mooy premier meetingu parti de la paix de létique et de l'équité parti bi dafa tudd parti de la paix de létique et de l'équité paix nag mooy jàmm ñetti baat rek la jàmm moom kenn du ko firi parce que fu jàmm amul dara mënu faa sax te fii jàmm dafi am donc paix matul ñu koy firi éthique kenn du ñëw daaru musti di firi éthique parce que fii dëkku diine la dëkku éthique la parce que boo nee diine ne morale ne éthique parce que boo nekkee yow kot da ngay jàpp ne yaa suñu borom doo wax wax ju ñaaw doo wax lu ñaaw ci nit doo jëw doo def naka su dul noonu loolu mooy éthique donc parti bii ku ci bokk da nga war a nekk nitu jàmm mais da nga war a nekk nitu éthique maanaam da nga war a am looy jomb équité nag kenn du ñëw fi aussi di firi équité équité du lenn lu dul ñàq jëriñu maanaam loo def rek moom ngay am ci li mu def lañ ko ji tey bu doon toog di lim ñi fi nekk du fi jóge te def leen koo ji ka deful loolu munta am loolu loolu mooy équité ñépp yemuñu am na koo xam ne bu woote woon tey du am lii loolu mooy équité mooy ñetti baat yooyu